rom saar juróom léegi nag gannaaw yàlla àtte nanu jub ci kaw ngëm nanu jàpp ci jàmm ji nu am fa kanam yàlla jaarale ko ci sunu borom yeesu kirist moo nu ubbil bunt ci yàlla nu taxaw temm ci yiwoom jaar ci ngëm te it nu ngi bég ci neggandiku yàlla boole nu ci ndamam te du ci loolu rekk waaye bég nanu it ci sunuy nattu ndax xam nanu ne nattu day feddali muñ te muñ mooy ndeyu jikko ju dëgër te jikko ju dëgër day jur yaakaar te yaakaar jooju du ay nax ndax mbëggeelu yàllaa ngi baawaan ci sunu xol jaarale ko ci xelam mu sell mi munu may ndaxte bi nu amul jenn doole booba la kirist dee ngir nun fekk danoo weddi woon yàlla kuy nangoo deyal nit ku jub yomb la gis waaye nag jombul am na ku nangoo deeyal ku baax waaye yàlla firneel na mbëggeelam ci nun ci li kirist dee ngir nun bi nu nekkee sax ay bàkkaarkat gannaaw kirist tuur na deretam nag ngir yàlla àtte nu jub rawatina ne dina nu musal ci merum yàlla nun ay bañaale yàlla lanu woon waaye doomam dee na ngir jubalunu ak moom ginnaaw léegi nag xariti yàlla lanu rawatina ne dinanu mucc ndax dunduk doomam te sax nu ngi bég ci yàlla jaarale ko ci sunu boroom yéesu Kirist mi nu jubale ak moom kon nag bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daldi law ci nit ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar bàkkaar kon nekkoon na ci àddina bi yàlla di laata wàcce yoonu musaa waaye ginnaaw yoonu musaa tëddagul woon bàkkaar du woon jàdd yoon teewul nag la dale ci aadama ba ca musaa dee ngi fi woon ci àddina di noot ñépp ak sax ñi seen bàkkaar melul woon ni bosu aadama maanaam jàdd yoon aadama moomu nag moo di takk ndeeru kirist mi waroon a gane ci àddina waaye warunoo yemale tooñu aadama ak mayu yàlla bàkkaaru kenn nit kooku tax na ñu bari dee waaye yiwu yàlla ak may ginu keneen nit ka yeesu kirist yéwénal baawaan na ci ñu bari ba suul tooñ googu te bàkkaaru aadama nuroowul ak mayu yàlla aadama bàkkaar na benn yoon ba tax yàlla daan ko daanaale ñépp waaye yàlla jéggale na tooñ yu bari ci dara ba mu àttee ñu bari ni ñu jub bakkaaru kenn nit tax na dee tàbbi àddina yilif ñépp ni buur waaye jëfu keneen nit ka maanaam Yesu kirist moo ko suul ba tax ñu bari tàbbi ci dund gu bees falu ni ay buur xanaa ñi yàlla boole ci yow mu bari te àtte leen jub ci dara fa kanamam kon nag nu gàttal wax ji jàddu kenn nit ka rekk moo waral yàlla daan ñépp noonu itam jëf ju jubu keneen nit ka rekk moo ubbi bunt ba ñépp mën a jub ci kanamu yàlla te am dund gu bees aadama moomu dafa déggadil yàlla ba yóbbaale ñu bari ñu nekki bàkkaarkat noonu itam Yeesu Kirist dafa déggal yàlla yóbbaale ñu bari itam ñu jub te yoonu Musaa daldi wàcc ngir bàkkaar gën a bari waaye fa bàkkaar bari yiwu yàlla gën faa bari ba tax ni bàkkaar doon yilife ñépp ni buur indaale de noonu itam la yiwu yàlla faloo ni buur jóge ci njub jëm ci dund gu dul jeex te loolu lépp darajay Yeesu Kirist sunu borom moo nu ko may